léegi nag Ousmane Sonko xëy na le 16 bi euh, ñu bari jàppoon nañu sax du wuy ji. Mm-hmm. ndax nee na woon wóoluwul avocat bi ko war a àtte am nañu wax ba ñu daal. kii mm-hmm. maam Mbaye ñaa la. Mm-hmm. mais xëy nañu nag. Ousmane di wuyu ji. ñu bloqué ko ci rond point bi ba yàgg ñu ne mënatut a dem il faut ñu dindi ko ci otoom. ba foqarte am na ci ak Guy Marius Sagna ak euh, acte bi mu ci def ak yooyu. ba ni nga déggee ne après euh, maître Clédor dafa xëm moom itamit amee na tawat ba mi ngi tëdd ci clinique ci waxtu wii. boo ci doon def benn jàngat ak ci santé wu Ousmane Sonko ndax tiitoo ci mbir yi. Euh, tiituma ci nag ndax dafa mel nii li xewoon rek mooy xewaat. li xewoon. Sénégal dafa tàmm heure bu jubee ay élection foog mu am ay tension 2000 noonu la woon 2007 noonu la woon 2000 2011 2012 noonu la woon 2019 mhm. bi kadalika gis nga reen ji même législative yi passé local yi sax xawoon na am ay yëngu-yëngu mhm. mais yii nu jëm nag dafa mel ni dafa gën a sérieux ndax moom dafa des lu mat un an mel ni affaire bi dañ ko déclenché tàmbali na xaat. Mhm. te jàpp naa ne lu mënoon a ñàkk la. si procès diffamation ci ñaari nit. Mhm. mais ampleur bii mu am dafa. vraiment dafa jéggi dayoo man mhm. jàpp naa ne. jour boobu Ousmane Sonko mënoon na dem wuyu ji te dara du xew. su fekkoon ne neex na neex na neex na nguur gi fi nekk. Sonko mënoon na wuyu ji. dem ñibbiwaat këram. Mhm. wala bu dee dañ koy àtte ñu daan ko ñu daan ko te dara du xew. vraiment ci kaw nag. Mm. mu fekk loolu rek moo leen ñor mais bu fekkee nag defanteeg Sonko moo leen ñor moom mënul woon nekk te dafa mel ni loolu moo feeñ la seize. maanaam wuy ji yëkkatiwu leen woon. waaw non mooy waa ji foog ñu jëfante ko. wane ko ni ko mën nañ la coppet. waaw yóbbu la te xaddu dam comme dégg nañ ne mu ngi menacé di wax ay naan kenn du ma utal yoon kenn du ma nàngam kii foog jëflante ko. cest à loolu moo feeñ ci ni mbir mi di doxee mais affaire loi moom feeñatul sax. Mhm. ñoom seen diggante lii ñu def mbiru loi nekkatu ci. mais mbiru defante moo ci nekk mooy kii day dëgër bopp ak ñun. Mhm. kii daf ñuy wan ne nii la toll danañ ko wan ne ko état kenn du xeex ak moom. Mhm. c'est-à-dire ci logique boobu daw la ñu nekk loolu ñu wax ko. ñu bañ ko wax ci loolu la ñu nekk donte jàppoon naa ne mënoon na bañ a demee noonu. parce que Ousmane Sonko c'est un politicien. bépp politicien buy politique. te doo def ay discours yu tàng. yow sa politique bi doo dem fenn. dëgg la politicien day show loolu dafa yàgg am ci politique. Mhm. Abdoulaye Wade jaar na fi lu nekk def na ko. Mhm. kazaalika Idriss Seck bi mu ciy toll. wallaay président Macky Sall mi bi mu ciy toll. Mhm. c'est-à-dire politicien ak discours bu show ñoo ànd. léegi nag bu fekkee sa waay heure bu defee discours bu show rek nga wàcce armée beeg. takk der yëpp du sotti. vraiment cest à Sonko benn nit la xam nga ne bu lancé état ne leen na. du ma def nangam. waaw du ngeen ma tànnal fu may jaar gëm ba ba pare ni damay ñibbi nag daa pare woon pour ñibbi. voilà damay dëpp ñu ne ko doo dëpp. waaw ah, vraiment mënoon na ñàkk man gis naa ne bi mu di dem. Hmm. mënoon nañ ko bàyyi mu dem dont nag am na ñuy wax naan. Hmm. moom tamit wuyu ji dong nee na yor na rapport bi wuyu ji dong. Hmm. lan la ci mobiliser. waaw benn politicien buy politique jàkkaarloog adversaire am boo xam ne gëm na ne am na influence ci àtte bi ñu koy def. te loolu kenn mënu koo dindi moom koy da nga naan. d'accord nga ci wala d'accordoo ci. Mhm. mais nguur gi dafay am influence ci ne àtte bi di doxee rawatina àtte bu jëm ci Ousmane Sonko. Mhm. léegi nag yow boo xamee loolu. mais fi nga mën a amee doole ngay wut mooy say militant ngay woo ñu gunge la. Mhm. mais loolu lu waa terewu ko. déedéet ñun liñ fi fekk yëpp bépp politicien bu am dayoo bi mu am. bu ñu la masaana woo say militant dañ lay gunge. munoo woo ab politicien nag. Mhm. ba pare ne ko benn militant du la gunge changement bi loolu mënul nekk. président Macky Sall bi ko fi Abdoulaye Wade convoqué. Sénégal yëpp dañ ñu ko woon doode mbàyyi ñu fi. militant yi ko gunge. Mhm. waxuma militant yi kese de. Mhm. journaliste yi ko doon gunge ñoom ay sympathie lañ woon ci moom. dëgg la. te loolu léegi benn journaliste ñeme Pape Alé mi sax ci lañ ko doon wax naan Macky Sall lay liggéeyal. dañ <laughs> doon jàppale ni nguur gi di noote opposition bi. Mhm. presse bi dañ ci daan duut baaraam naan lii c'est pas normal tey benn presse sañu ndax boo ko waxee ñu ne ah yow ah yow pro Sonko nga nga su ko defee nga daal di commencé waat taxaw ne man boo nekk lu ma ko fii c'est-à-dire pour man nag loolu jaaduwul ab nguur bu demee bay jaay doole aw nit. Mhm. dafay baax am ñu taxaw naan jaay doole gi jaaduwul mais bu xam ne amul lu dul aw làmmiñam kenn du ma jaay doole mais da nga bëgg a dem wuy ji mobiliser sa mbooloo ma ñëw xàllal la tali bi yëpp vraiment parce que oto bi ni ko woon coppee dem ak moom oto boobu mënoon naa xàll wallaay mënoon na selo na yoon bi yëpp mhm. nii may leen ko ñu may ko mu jàll d'accord oto yin fa fekk dix minutes yi ngay taxaw quinze minutes trente minutes yi ngay xàll yoon bi mu jàll du la wàññi dara mhm. te su boobaa dinañ dem ci tribunal ci jàmm mais problème nu koy mooy ne dañu fii laay jaar ñu ne ko fii ngay jaar waaw man jàpp naa loolu lépp ñàkk moo tax dëgg la bu fekkee Sonko dañ ne amul rapport bi. Hmm. moo tax mu ragal a dem. xam hmm. nga hmm. dañ naan Sonko amul rapport bi moo tax mu ragal a dem waaye léegi yow xam nga ne amul rapport te buñ ko woowee dix heures. bu ko fa dix heures fekkul. dañ koy teg ay daan. Ah. yow looy yàkkamte yow danga bëgg ñu tegal ko ay daan. ok xam naa li wax da nga bëgg ñu teg ko ay daan. waaw ah. sooy bu ko juge bi ne dix heures na nga ñëw dix heures bu ñëwee day àtte bu ñëwul day àtte te am na conséquence ñu teg ko ay daan. ci tardé bi mu def yow bu koo tardé lu sa yoon bàyyi ko bu mitin bu ko neexee. su ko neexee na xëy sax dem Thiès juste bi moom 10 heures la wax ak moom yow bu sa yoon nekk ci lu mu nekk. l'essentiel bu tardé yow li nga bëggoon ci moom da dañ koy teg ay daan. maanaam ñoom su ma la waruñu woon dem këram jéem koo jëlee di ko accompagner. di ko jëlee ak di barricade këram comme nañ ko rek bàyyi ko convocation. waruñu woon barricade këram waruñ ko woon a baare ne ko doo dem parce que barricade kër gi dafa jiitu dem bi la bi ñu ne suba la war a dem guddi gi nga ñëw baare site bi yëpp ne kenn du dugg. mais sëñ bi loolu bokkul ci procès bi. d'accord loolu normalement day tiid wane ne. naru ñoo maandu ci diggante ñaar ñii di àtte. mais xam nga yaa ngi tudd rapport yi tamit mais imam rapport dafa garaaw. léegi nag boo nee léegi rapport a ngi nii. Mhm. ñun la foo jëlee rapport. xam nga yooyu ay conséquences yu taxaw mooy Sonko bu ne am naa rapport léegi Mame Mbaye li muy xaar ci moom li ñu bëgg mooy na génne rapport léegi su génne rapport bi nag ñu ne ko ah, jàpp naa ne waruñ koo laaj foo ko jëlee. Ah, ci mbir yi la bokk de. waaw nee nañ ay boo rësal document. xaw ma ah, waaw mais loolu. loolu su fekkee loolu lañ bëgg a wax. <laughs> kon lu tax ñu di ko laaj mais sooy bu noo loo xam ne waruma koo génne nga di ko laaj. Pape Alé mi li ñu ko téye yu mel noonu la. léegi lii nangam léegi anam foo jëlee yi nga wax ni foo ko jëlee. waa léegi kon su boobaa déli la ñaar moo mën a nekk. Hmm. ñu ne rapport amul. waa ñu xam ne rapport amul. Hmm. mais su dee rapport am na. Hmm. et effectivement rapport bi dafa épinglé Mame Mbaye bu dee loolu am na. laa wax ne Mame Mbaye moom dégg naa ci kii mu ne rapport bi am na. waaw waa léegi naa ko ci absor bi am na waaw te xaalisu sénégalais yi la hmm. te nee nañ ak nuubal moo ca nekk te ñoom xam nañ ne rapport bi am na mais léegi bu ko Sonko waxee lu ñu ciy woolu yow xam nga ne rapport bi am na mais warul génn hmm. bon duma wax ne warul génn sax daa war a génn mais génne ko ci misaal parce que sénégalais yi mënuñu yor seen xaalis vingt neuf milliards hmm. ñu jox ko benn nit mu liggéey ci ñu ne rapport amul pour man looloo gën a garaaw sax rapport ñàkk am ci ku nu jox vingt neuf milliards Birahim sekk na trente six milliards trente sept sax. ñu ne la loolu amul rapport mais sooy bi loolu moo gën a garaaw ci am réew. dénk la ay milliards nga pare amul rapport. kenn xamul li nga ci def jaar na yoon wala. jaar maanaam amul trace daal. loolu moo gën a garaaw rapport bu am sax. léegi nag bu fekkee rapport bi am na mais kenn waru ko génn parce que déclassifié wuñ ko. Hmm. su boobaa buñ na ko andil rapport bi. Hmm. wa illaa buñ na ko andil rapport bi mu andi ko ba pare. Hmm. amatoo droit di ko daan. lu nga di ko daan mooy dafa feeñal ak càcc goo xam ne mhm. ñun la ñu sàcc suñu alal mu feeñalal ñu ko da ngeen ko war a encourager mhm. su fekkee gis nañu rapport bi ñoom te xam ne rapport bi moom waru koo yore kon buñ ko ko laaj mais nañu gëm ne li mu wax am na ñu bàyyi noonu mu sedd d'accord mais daal su ma doon moom su fekkee rapport bi yor naa ko ñu mhm. tuddee ko recel document ñu tuddee ko lu mën a doon danaa génn rapport bi ne la ko bécc boo ne ma recel document man la yaa ma ko laaj d'accord foo ko jëlee man la ci internet bi laa ko jëlee Euh, internet euh, imam internet ci mbedd mi. ah waa léegi li ko fa yóbbu lañu war a lijjanti mais buñ lijjanti ki ko for. d'accord man su ma fekkee yow nga jël fii bagage solution waral ko ci mbedd mi ma for ko lu ko fi génne yóbbu ko ci mbedd ma la ñuy lijjanti. mais man mi ko for kay man damaa for rek ñëw indi la. d'accord mi ngi nii suñu alal la jël nañ ko moo ngi nii pour man loolu. Mhm. mënoon na bañ a am coow loo xam ne jaaral fii doo jaar fii ne la coppit yóbbu la ci koo xam ne sa dem nekkuloon obligation. d'accord léegi ak jagat yaramam gi ñu koy jiiñ naan dafa am lu ñu ko sotteek. lu ñu ko xëpp bay def ay capture d'écran naan waajee sotti leeg kii ko xëpp lii. ndax da ngay d'accord ak ñoom ci daa am lu ñu ko sotti grenade yi la wala. ah en tout cas day lii ñuy tuddee état wu senegal mhm. état wu Sénégal. walla régime yi fi jaar yépp mhm. dañ leen tuumaal ne ay bandi lañu. Mhm. te ñoom ñoo koy wax seen biir li tax ma wax ko mhm. Idriss Seck bi ñu koy convoqué loolu la waxoon waaw feebaruma nangam nangam wax yépp déclaré yu bari am na luñ ko nar a def ci biir waaw waaw Idi waxoon na loolu daani lu ma dal ñooma mhm. à chaque fois boo amee problème ak régime bi rek li ngay njëkk a firndeel nit ñi mooy maa ngi nii feebaruma lu luñ ma def nangam nangam lu tax nit ñi di ñaw njorte am na lu ñuy defaate foofu surtout léegi dafa am ay xeeti dee yoo xam ne boo amee du leer mukk gis nga affaire Fulbert Sambou mooy ñaari gendarme yooyu mhm. kenn ki ba léegi kenn xamul dee na kenn xamul mi ngi dund mhm. kenn ki dee na waaye kenn xamul lu ko rey ba léegi mais am na ku bokk ci ñoom nee na dañ leen rey muy Susan. Susan Camara waaw ba léegi te kenn woowu ko loolu ma jaaxal mhm. te gis naa ko bind page Facebook ne xanaa kay sama frère bi reyuñu ko mooy Fadilu mhm. ñu jàpp ko tëj ko ci laaj bi mu laaj ne xanaa du dañ ko rey mhm. kee moom ne dañ ko rey ñu bàyyi ko fa parce que xëy na moo bokk ci nguur gi kii bokkul ci nguur gi waaye bi nag xam nga loolu du am réew loolu du justice donte man d'accord naa ne Sénégal moom ñi gëm ne justice am na fi man ñooñu laa amal problème man aw ma problème mu ñu naan justice amu fi man dama mosul gëm ne Sénégal am na justice amu loolu sëriñ Cheikh bi mu ko waxee yàgg na nee waxal ne réew mi lu nekk ngi fi ba mu des hmm. justice amul ci réew mi hmm. gis nga dossier Mame Mbaye Niang bi hmm. ak dossier Adji Sarr ñuy toppee Sonko te Sonko gëm ne bu demee danañ ko condamné waaw nee na wóoluwuma justice bi waaw waaw gis nga ñaari dossier yi ak les mêmes juges su yàlla defee ñu dem ba deux mille vingt quatre bu Ousmane Sonko nekkoon président. Hmm. le même dossier. Hmm. les mêmes juges. Hmm. dina ci tëj waa benn. sooy bi loolu kenn mësu koo gis. <laughs> donc dossier yi ñu toppee Sonko te amul ku am sikk sàkk ne mën nañ ko cee condamné. parce que li ngay wax nii li ma ci li li tax ma dëggal ko. 2011. bi Ablaye Wade président Ablaye Wade di wax ni. mën naa nekkaat candidat. Ah. conseil bi toogoon. Ah. dëggal ko validé bàyyi mu jàll. ba léegi ki nga xam ne moo baaxee woon président Macky Sall doon doon déglu li muy wax nga jàllale kii. tey ñoo fi ne. même justice bi même dossier bi ñi ci nguur gi mën nañ ci tëj kii fi nekk tey di opposant opposant bi bu yéegee même dossier bi duñ ci changé virgule de même juge yooyu danañ ci tëjaat ñii fi nekk ñoom sax dañ la koy wax dañ naan la saa waay bu ngeen sàgganee ba mu toog fi da leen tëj. waa sëñ bi loolu mooy ban ju mais loolu du justice nañu waxante dëgg. Euh, ma sëñ Mbacke Ndiaye waxoon na ko. bu ngeen def doole ba ba wàdd kii ñun ñëpp la tëj. Ah, loolu mooy ku fi toog. Mhm. yow yaay justice fi mu nekk nii justice Sénégal jamono bi mooy li neex Macky Sall. jamono Ablaye Wade mooy li neexoon Ablaye Wade. waaw dëgg keneen ki ñëw bu dee nii lay continuer justice mooy li ko neex. xanaa moom mu am courage yu. Mhm. changer ne justice bi nii muy doxee jaadu. mu indépendant nañ ko changer may leen ñu indépendant. donte indépendance bi bu mu nekk total nañu leen tënk ñoom it parce que ab juge boo xam ne mën ngaa àtte nit teg ko li la neex du dëgg te yow kenn du la daan loolu tamit c'est pas normal. juge dañ leen a war di àtte. macha allah juge bi ci àtte lu dul yoon war nañu ubbi bunt bu ñu la mën a àtte.